damaa bëgg a bàyyi ba andil leen ci bu ma leen ci andil lu lu doyit andi leen ci luñ doyloo. Ah. donte moom ku ne xam na ay jëfam. Ah, léegi dikkale ci colin bi tuuti rek maanaam colin bi. boo ko séenee rek damay cole. waaw xam nga ak col dafa bokk ci li am solo ci doomu aadama. Mm-hmm. ndax col day màndargaal. moom colam dafa cosaane. Oh, gaa yi xare ba tar ya léeg mu solo ba jël manto ma teg ca kaw. tay <laughs> jambar boko ko séenee kenn ko lam lamé jambar deug deug deug deug deug deug deug hmm. moy Serigne Moussa Nawel kan, Mbacké wallahi deug la dé ci fidwa ci ngorga hmm. ak ci jomja ak ci dëggu ga hmm. nga xamné mom moom dundiinu magi démb ñala yor ah, waaw taxawayu magi démb ñala yor waxinu magi démb ñala yor doxin ba ak doxin wa fonk kilifam, kilifaam yamalewu ak dara muy seigne muntaha wallahi xaw gisatu ku bëgg ba bur mom kenn buru ko jege te cofeel ga ndaysan yermane jëm seigne Moussa Nawel Mbacke liggéey rek la xam ndaysan ak tarbiya ak jaamu yalla mu doon koo xam ne ay waxam lu néew la hmm. waaye jëfam lu rëy la tabaski yi saa su ñëwee. Mhm. kenn ku nekk gis na li muy yëkkati ci ay addiya ponkali xarit tabaski yoo xam ne. benn bu ci nekk buñ la ci fayoon yow mi ko moom huit cent mille doo ko jaay. Mhm. te lim ciy jël di ko jébbal kilifaam kenn mënu laa wax nu mu toll. te doo ko dégg ci dara. déggoo ko ci benn yëngu. loolu mooy eh, wax lu néew jëf lu bari. loolu loolu la mag ñi doon def. mag ñi dañ naan Abdoulaat dañu naan wax lu néew. Mm-hmm. di jëf lu bari. gis nga wax su néewee rek jëf bari. Mm-hmm. am na kook jëf rek la baaxoo. suy wax lu mënta ñàkk rek la sëñ Moussa Nawel buy wax lu mënta ñàkk rek lay wax. ndeysaan mel ne amoon nañ jàmbar yi mel noonu ko ci mel ne sëñ Mbacke soxna loo. bari na fi. ndeysaan. siiñ bi yoonu murid yàgg naa am ay nit ñu baax. wallaahi. yagam ay ndanan yagam ay nit ñu jub mhm. yagam ay nit ñu deug ba tay nak ñu mel nono ngi fi waaye duñ leen gis lu bari ay laqtu te serigne su mel nonu ñu ci bari dañ leen di daw lu lolu te ñi ñoo mata jégué waaw bon dëgg ci ñëwaat incha allah di nuyu nak rakam yëpp euh mhm. ah, deggal ko lolu